برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان كوريل gi fi ñëwoon keroog yi ak man mi di wax ak yeen di elage omar wañ ak mam bab mam bi tay mom wa ko ci la euh, ñun nak amuñ cadeau tay parce que ñun bi ñëw kéro waxon nañ lañ wara wax mhm. waye dañoo and ak ño xamne rek suñu kilifa lañ té xeyna ñu jitu won leen fi motax ñu leen di dalal pour jox leen cadeau gi ñoom ko defé ñoom ñu jottali seen jall sëriñ bi kon baax na jëre jox cadeau gaangi non mère bi yaay mo nekk ne ke magam bu jigen la papa mo nek ni ah kan kii ah yow yaay magam bu góor. Mansour Niass la. macha allah. am sama benn caatu ma may waaye maamu ñu ngi ci dëkk bi waaw fii yéen ci ansaaru bi nekk président daayira bi. ngeen ñëwee oo ma def lu rafet. ma bi waaye ngeen fekk ñu tamit la paas suñ kër ndax moom la bilaa man sama nijaay la waaw li nit koo xam ne ku nekkoon na àndal ci njub la ko dëgoon defee ngeen ñëw tey boole ci délégation bi pour ñëwaat pour jaale dañ ci kontaan di leen dalal jàmm di leen wax ne suñu maam mu ñu muy maam dañu si mooy bàyyam kii magam la moom it kenn dañu si leen koy wax ngeen famille bi yaayam ak ñi doon di xarit am magam la bàyyi ñes tamit magam la moom nit ñi defoon nañ ko ñu ngi mos waaye ñëw na moom tamit nekk ngeen famille bi yëpp ñu leen dara jàmm ba pare di wax ne encore tamit ñu ngi taxaw xawaayu ànd ci délégation Ansaru Din ñu ko jaale si asalaamaaleykum alhamdulilah sëriñ Mouride Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziare di ma saw lañ bokk di la ko jaale ko jaale njaboot bi yëpp te wax ne yéen mën nañ koo jaale suñu bopp dëgg la de du xaaj ci ñun kenn la rek ci ñun ñun ñooy moom mooy ñun tey nag dañoo ñëw wutu fii sama nijaay man xam naa Ibrahima Niass doomu bàyyi bi jiite Ansaar Diine ci senegal ba mu daj eh, mu ne ellante woon tànkam oyof ba mu mën a ñëwal boppam ba famille bii xam ne li dal ci seen kaw ci kawam la dal loolu nag li koy tegtale mooy ñi mu tànn ne nañ jiite délégation bi ñu yombut ci délégation mu mën a bokk ñun ñii dajee waaye tey dafa ne mu ci gàntal kenn ci ñun suñ nangoo ngàntam rek ñun mënum ñoo gàntal nañ teew <clears throat> man maa jiite Ansaar Dine département Kaolack mm-hmm. di ko fa taxawal di ko fa liggéeyal euh, ànd ak délégation bu tedd bi ñu tudd du ñëwaat ci tur yi fekk si man Baba mi nga xam ne moo jiite daayira Kossy bi ñuy wax man Bawol Fayda bokk ci suñ fédération yi nga xam ne tey su Birane inscrire na woon mu ngi foofu ci listam ci moom la war a bokk donc ñun ñoo ñëw jaale si suñ bopp famille bi di leen masawu di wax ne bi mu ne Birane mu koy ñaanal yàlla fa mu jëm mu gënee ko fii mu jugee li mu doon def ci baax yëpp dem na fi mbaax amee njëriñ te moom amal nañ ko yaakaar ndax dafa dañ fa tàggoog ñun ci weer ci bés yoo xam ne ku ci dem te nekkoon ci li Birane nekkoon rek yaakaar lañu am ci moom dañ ko yërëm dañ ko jooy ndax ñun ñi mujjee jonjoo moom ci fan yu mujj yi nga xam ne man dugg na ñaari yoon sama barab bi liggéeykaay te lam fa wax dara jëmu ci ci boppam moom kese lu lu jëm ci ay nit la ñëw ci man wax ñaari yoon dugg na ko yu jege yoo xam ne lu ci ne rek ñaari baat lay wax ak man sëgg xam naa ci moom ci seetlu gannaaw bu ma fàddoo nii ni ku bari kersa la ndax wax na man ay yoon yoo xam ne du ma bàyyi xel ci kanamam waaye danaa gisee mu gàttal wax ci ba mu mel ni ku ñàkk ajo waaye bi mu ma tàggoo ci nii mu ma tàggoo ci bés mujj yi dama ne kii yàlla moo ko bindee woon nii du xool nit du wax wan ni dara lu ko ñu ngi koy jaale mbokk gi yëpp di ko ñaanal yàlla mu xadoo ko àjjana te yaakaaral nañ ko ndax mu ngi mën nañ koo boole ci sax su fekkee ci lim jugee la jugee tàgguñu dem yoonu hmm. dafa mel ni kenn xamul luy jëlee bakkan fii waaye mën naa nekk sax way shahid la mën naa am doon na yëg métit mën naa am doon na yëg jàngoro mën naa am doon loolu yëpp kenn xamu ko hmm. mu jox boppam pays bàyyi rek di daw di liggéey ba tàgg wan ñu gannaaw ci minute yu néew yooyu ñun daal ñu ngi koy jooy ànd ak yéen waaye du jooy ronkañ du jooy caali ci suñ kanam borom ndax digaluñu loolu li mu wax mooy suñ ñàkkee ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla mu yoon ñu ci suñ musiba loolu rek la ñuy wax te ñu ngi ñaan yàlla mu uutu fii mu nekkoon lim fi taxawee woon yëpp ñaari wàll yëpp yàlla moo ci gën a mat ci famille bi ak ci njaboot yi ak ci ñun ak ci moom yëpp yal na yàlla féete ñaari wàll yëpp yal na yàlla fayante njaboot yëpp lépp lu ngeen ko bëggaloon yal na yàlla am na lu ko ëpp yal na ko yàlla moom lépp lu mu mébétoon def fii yàlla su bàyyee njaboot wala mu mën a demee yàlla na yàlla teg loxo ci ñoom taw méngoo leen méngoo suñu ñu ngi gërëm daal di sant euh, yéen ñi sant yàlla biñ bokkee ci ñoom Cheikh Ibrahima yi nga xam ne xàmme nañ dund xàmme dee ñi ngi doon dee deewoon nañ nekk ci àdduna di dox gannaaw gi ñu génn ci dee jooju dund gannaaw gi ñu dem ci dee bu mag bi nga xam ne mooy toxu ci kër rek dem ci kër sant yàlla ci loolu jëraan jooyuñ ko beneen yoon di ñaan yàlla mu wutal fii mu jógee lu ci taxaw ci place am tamate ko sax on zalika Allah aziz beneen yoon sëriñ Mouhamed Lam mu ne mu ngi wu kër gi te mu wax ne yàlla dana ànd ak ñoom nañ mun loolu daal la wax waxoon nañu dara ne suñu ñëwee ñu jox ko famille maam baabam ah, ne leen moo ko moo leen ko yónnee duma leen ko di ak njabootam moom ñu yàlla ya fay yoonu ya ku jaale te yàlla jàmm wutu fi yàlla na fi yéex am nañ ko yéex a fayal te jaay seetu ji salaamaaleykum wa rahmatullah ñu naan man sama doomi lijaay la papaam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay man fii laa dëkk mm, même dama yëngu ci daayira ansar daayira daayira man ban fay ma ma mbaaw daa ñu tàggoo fan yi sama xaw a xaw a jagati sax man nii mais li ngay def kontaan nañ ci lool ndax bidaa dafa mel ni kilifa la te kilifa la tim mm. ndax li fi daje ci ab doomu aadama mm. te ku ñëw benn baat bi ngay wax mm. léegi maa ngi si si wax ju rafet la fi wax ñaan fi wax ñaan ju rafet ngeen jóg ànd ak bàyyi seen itte yi ñëw teew kooku du ñuy def loolu sant yàlla di ñaan yàlla euh, yool bi leen ci yàlla dël yàlla yàlla jox yaara bi tànk yi ñëw ak ngeen delloo yan si fekk bàkkaat dañ ko dara jaara bi liñ bokk yàlla ci yàlla boole dimbale def na suñu mboolem tàkku dem yàlla ko yéex a fay lante man yàgg suñu diggante ki dem yàlla ko yàlla jéggal dañ des ak yàlla te barkeem seex barkeem naa ko barkeem maam bàññee suñu yaakaar jërë ngeen jëf sëñ la sant leen gërëm ci barke dundam xale la ci at mi xam nañ ko man bi ma jaxasoo ak moom yàggut waaye diggante bu gàtt bi xam naa ne nit ku mag la te loolu yàlla moo koy defal nit nit mu góorgóorlu ba def sa bopp ni ni ni nga toll. Euh, xam naa ko découvrir naa ko tamit ci bésam yu mujj te moo tax man dëgg-dëgg dem ba si mii dañuy taxaw man ne ko man daal fi ne damaa ragal nit. Mm-hmm. parce dañuy dox di dajee bu mu gisee sëriñ bi na nga a ma ne ko na nga def. mu dem ma dem. Mm-hmm. waaye fan yi gàmm gii nga xam ne at yii ñu ngi jooñjoo gàmm waaye ren. dafa mel ni dafa dawoon jëm ci nit ñi pour ku ne xàmme ko. Mm-hmm. ci liñ doon def. oto bi ñu tàggoo daf na sob bu métti ci ñun. Ah. waaye nag comme sob bi yàlla jiitu woon na ci jaama bi wax ñu lu mel nii bu ñu dalee ñu war a def. donc tax nañu xam te jëm. neexut métti na waaye nag mu rek yàlla ñu ngi koy bind tàggu kenn mu ngi koy jël dafay am droit jël ko du tàggu kenn. Mm-hmm. te ñu sant ko ci waaye dafay wax ne yàlla rek a xëyoo def lu mel ni ñu gërëm ko ci. Mm-hmm. su ko defee. bu fekkee ne wàccuwaay boobu la ñu am ci moom euh, dañuy nangul dogal bi ñaan yàlla mu wutal leneen mu gën du toog te yoon yi suñu musiba may ñu xoli muñ tamit ngeen góorgóorlu yàlla na yàlla ànd ak yéen yaakaar nañ ko biraan yaakaaral nañ ko ndax bésam yii kenn xamul kañ nga fi jógee waaye doo nekk ku nekk wóor na ndax ci bés yi biraan tàggoo ñu ngay tàggoo yi surtout mu tàggoo ñu fekk ci lu baax la nekk da doon liggéeyal tey sëriñam am nañ yaakaar trop ci moom lottu nañ daal ci wax li nga xam ne mooy suñu xol ci moom waaye kilifa moo ñu yónni woon moom Cheikh Mouhamed Amina Ibrahima Niass xam ne tey jii lañ tawoon mu mënoon toog fii am na ay ngant yoo xam ne permettre ko mu ñëw waaye nee na wax famille bii na leen yëg na ne ba euh, Birane ci moom la jógee dem loolu nag daf koy bokk ak ñu ñaan yàlla mu ñun ñëpp yoon ñu ci musiba bi te dëkkale ko aljanna ful ay jëfam